mbokk yi ñuy déglu asalaamaaleykum daleen nag jàmm ji suñu centième numéro Sud Éducation ak mbégte bu mag lañ leen koy présenté tey asalaamaaleykum Mariam. wasalaamaaleykum Aïda. Mariam tey lan nga bëgg a wax suñu euh, auditeurs yu baax yi nga xam ne bés bu nit ñi ñuy dégloo nga xam ne ñoom la ñuy sagoo lan nga leen bëgg a wax tey ci numéro 100 bi. ah déjà maa leen di sant pour seen fidélité ci émission bi pour ay seen ay laaj yu bay yi nga xamante ni dañ koy posté ci suñu page Facebook moo tax ma xalaat ni tey jii pour suñu centième émission ñu def ko benn émission boo xamante ni dañuy tontu ci laaj yi nga xamante ni li ñuy li ñuy gën a faral di ci suñu page Facebook te aussi même. Euh, waajur yi nga xamante ni dinaa leen rencontrer de temps en temps ñoom tam ñoom tam laaj looyu laaj yooyu lañ may euh, gën a faral di laaj alors laaj bi nga may wax souvent que ne parents yi la koy laaj boo tasee ak bu ñu lay wax ak yow ci Facebook bi wala WhatsApp ak yooyu dañ lay laaj souvent yan lan la ñu war a moytu en tant que waajur yi yi nga xam ne mën nga ko def boo nekkee waajur. ah effectivement laaj la boo xamante ni dafay ñëw souvent waaye nag euh, tontu bi sax dina nekk tontu boo xamante ni dina ko essayer gàttal ndaxte sinon mën nañ ko gën a xóotal ci beneen émission euh, li juumte bi bi njëkk nag mooy euh, ñàkk muñ ndaxte mës naa ko wax ci benn émission à propos éducation en général ci yar euh, mooy yar mooy muñ mooy mën nañu wax ni yar ak muñ benn la léegi mënuñu nekk nag say say suñu nekkee ak suñu ay doom lu mu ñu mënti wax rek ñun ñu commencé ko yuuxu wala ñu koy def ay di ko di ko euh, di ko toroxal loolu dafa nekk da loo xamante ni mënul ànd ak yar te suñu ay doom duñ doot ñu déggati mu indi ma sax ci beneen euh, erreur bi nga xamante ni dañ ko war a moytu mooy di yuuxu di dóor wala di saaga ndaxte yuuxu dóor ak saaga dafa nekk ñetti affaire yoo xamante ni suñ ko defee suñu doom dañ koy lor et puis dafay daf déjà violence la te baaxul pour moom et aussi message bi nga xamante ni moom la ñu bëgg mu dégg du ko sax dégg parce que moom li muy gis mooy euh, métit bi ko dóor yi di indil euh, ak aussi euh, yuuxu bi rek lay dégg du dégg li ngay wax sooy yuuxu loolu war nañ ko moytu ñetteel bi nag benn ñetteeli erreur bi nga xamante ni dañu war a moytu mooy ñàkk def ay activité ak suñu ay doom ndaxte am na ay waajur yu bari yoo xamante ni dañoo bari ay occupation ba nga xamante ni duñu duñu tal seen doom école fayal leen euh, seen i ay seen i ay sport xëy na wala fayal leen seen seen oustaz wala beneen activité religieuse euh, après seen doom daal du ñu ci du ñu def dara ak ñoom te loolu nag nekk na benn benn erreur ci pas pour parents yi ndaxte dafa bokk ci yar di am ay activité ak sa ak ay doom maanaam di génn ak ñoom di dem defi ay promenade wala dem cinéma ak ñoom wala sax di fo ci biir kër gi ak ñoom euh, beneen erreur bi nga xamante ni war nañ ko aussi moytu mooy bañ a di bañ a wax suñu ay doom que ñun dañ leen bëgg taf leen ci suñu xol uuf leen di leen wan affection. Mhm. Mariem beneen question bi la parent yi waajur yi di poser souvent aussi mooy naka la ñuy def ba xale yi déggal ñu ndax dañu nekk ci époque bu compliqué télévision yàq nañu ci réseaux sociaux yi yàq nañu ci naka ngay def te boo doorul saaga woo yuuxu woo nooy def ba xale yi déggal la. ah de pourtant nag euh, ñàkk déggal bi aussi amul vraiment rapport ak époque bi parce que su ñu xoolee bu baax xale ak euh, ak dëgër bopp dafa xaw a ànd tuuti ndaxte foo gis xale rek suñ ko teree dara daf koy envie dafay am envi def ko même yow su fekkente ni ko essayé nga fàttaliku tuuti bi nga nekkee xale euh, suñ la teree dara xam nga suñ la newee bul ubbi bunt bi yow foofu fu fu di nga essayé ubbi bunt bi sa forcément <laughs> surtout yow <laughs> foo voilà foo jaar di nga bunt bi moo tax pour que xale yi déggal ñu il faut que mu am benn façon bu ñuy waxee ñoom déjà soo leen teree dara il faut nga expliquer leen lu tax nga tere leen loolu parce que su am su àndul ak benn explication dañ koy vivre comme benn injustice dara loo xamante ni vraiment waruñu leen ko tere ñu ngi ko tere quand même euh, su fekkente ni aussi dañ leen war dañ leen ne nañu bàyyi dara wala nañ nañu def dara dañ leen di expliquer aussi pourquoi ñu war a def loolu euh, wa par exemple su fekkente ni da nga war a tëj benn bunt soo ko fekkee mu mu tëju nga soo ko ubbee nga tëjaat ko loolu dañuy expliquer expliquer lu tax nga war a def loolu pour que xale bi mën a comprendre pourquoi parce que su ko su comprendre lu tax ñu koy laaj ci lay gën a ci la koy gën a def parce que sinon su comprendre wul du ko def et aussi euh, il faut que yi comprendre xale pour que mu mën a euh, mu mën a obéir maanaam di topp li ñu koy wax il faut que mu nekk benn xale bu équilibré maanaam benn xale boo xamante ni ci biir àddunaam dara manqué wu ko euh, te aussi même su fekkente ni dafa vivre ay situation yoo xamante ni du ay situation yu habituelle comme par exemple dëkkul ak kese la nekkal wala ay maamam kese la nekkal loolu dafa nekk daal yoo xamante ni dañ ko koy expliquer mu bañ a nekk daal loo xamante ni daf koy vivre noonu rek te kenn du ko ko expliquer xale yooyu nga xamante ni dafa am ñu bari ci seen biir àdduna xamuñu comprendre ñu lu tax mu nekkee noonu ñooy xale yi gën a dëgër bopp justement maanaam daal communication bi ñuy wax dafa war a am entre xale waajur ak ay doomam. Mm-hmm. Uh-huh. mais question bi ma lay mujjee laaj ay euh, Mariam bi yoon doo ma mën a wax ne du question jamono. Mm-hmm. naka la ñuy def ba suñu doom yi bàyyi écran yi man damaa sonn ci télévision yi. <laughs> ay jeux ay pays m mm-hmm. xam nu ñu koy woowee seen jeux yooyu ñuy def ci manette yi. ak yooyu dañ cee sonn eh, eh, kii euh, nuñ tablette lu nekk daal xale yore nañ ko. loolu ay Aïda question bu am solo la dinaa ci essayer tontu sax tontu bu gàtt mais dañu war a retenir que ni euh, tablette muy euh, euh, écran muy tablet muy ordinateur wala muy télévision loolu yëpp dafa nekk ay activités yoo xamante ni mën nañ ko wàññi ci ci activité yu benn xale mën a am ci benn journée mënuñu rek ëmb loolu yëpp nekk ni baaxul ndaxte am na aussi ay njariñ waaye dañ ko war a limiter ci biir benn journée warul dépasser yenn waxtu yi en fonction âge xale yi moo tax pour que ñu bàyyi di seetaan ay euh, écran di def am ay activité ci écran def loolu kese ñu war leen proposer yeneen genre activité mën nañu def sport mën nañu def ay jeux de société mën nañu def ay sorti mën nañu toog waxtaan mën nañ leen label mën nañ en tout cas daal suñu leen proposer yeneen activité yu leen intéressé dinañu bàyyi tablettes yi bàyyi nekk di topp tablettes yi wala ordinateurs yi kese am yeneen activité yu leen mën a amal yeneen njariñ jërëjëf Mariem ci éclairage yi ñi suñu auditeurs yi ñu ngi leen di dig daje ci beneen émission toujours ak même mbégte bi pour waxtaan ak yéen. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce centième numéro de Sud Éducation que Mariem et moi sommes très heureuses de vous présenter aujourd'hui. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda, merci. Nous sommes effectivement très heureuses d'être arrivées jusqu'à ce centième numéro qui est pour nous un numéro fétiche, un numéro donc qui sera exceptionnel. Alors Mariam, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs qui sont si fidèles Qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui alors aujourd'hui, après avoir un petit peu réfléchi, je me suis dit qu'il fallait revenir sur ces quelques questions qui sont revenues si souvent dans les messages que vous nous avez laissés sur Facebook, qui sont revenus aussi souvent euh, chez euh, les, quelques parents que j'ai pu rencontrer, les quelques auditeurs que j'ai pu rencontrer ici et là. Donc Alors, euh, l'une des questions dont tu me parles très souvent et que les parents te posent, c'est quelles sont les erreurs à éviter quand on est parent Je sais que la question est vaste, mais tu peux nous donner quelques petites pistes. Oui, vaste question, difficile de la traiter en une seule émission. Alors, j'ai essayé de résumer ça, on va dire, euh, en, quelques, mots. Euh, je, dirais que la première erreur à éviter quand on est parent, c'est d'être impatient. En fait, euh, l'éducation va très compliqué parce que les, avec les enfants, c'est euh, fois sur 10, le résultat n'est jamais immédiat. Lorsqu'on demande quelque chose à un enfant, il, faut beaucoup de temps pour que l'enfant l'intègre et qu'enfin il l'applique. Euh, le deuxième, euh, je dirais, la deuxième erreur euh, à ne pas, commettre et à éviter absolument, c'est, je l'ai dit si souvent, c'est de crier, c'est de d'insulter les enfants parce que on leur donne d'abord un mauvais exemple. ensuite, l'enfant n'entend rien du contenu message. Et d'ailleurs, dans les coups, il n'y a pas de message, hein, il y a juste les coups. Et dans le cri, l'enfant n'entendra que le cri. Et dans les injures, évidemment, l'enfant ne va faire que l'injure pour ensuite la répéter. Euh, ce, que tout parent craint, en fait, d'avoir un enfant qui va euh, euh, tenir des paroles euh, ordurières. ensuite, l'autre erreur à ne surtout pas commettre, c'est de ne pas avoir du tout d'activité avec ses enfants. Donc ça aussi, nous l'avons énormément question-là, euh, c'est donc euh, ces parents qui ne savent pas trop comment occuper leurs enfants, et donc euh, qui font peu de choses avec leurs enfants et qui finalement vont les laisser euh, un petit peu trop euh, en proie à des distractions qui d'ailleurs les dérangent, telles que les écrans, les fameux écrans qu'on veut absolument éviter. Alors, euh, mais euh, une autre question qui revient souvent, Mariem, euh, chez les parents, c'est comment se faire obéir Parce qu'on est à une, à une époque où c'est très difficile, en fait, de parler à nos enfants. Comment on fait Alors effectivement, de très nombreux parents reviennent sur cette question, mais j'ai un enfant qui est très têtu, comment je fais euh, je, je, ne peux pas crier, <laughs> je ne peux pas euh, bah, taper, alors qu'est-ce que je dois faire pour me faire obéir de mes, de mes enfants Alors d'abord, euh, être têtu, je veux dire, ça fait presque partie de la, on va dire, de l'ADN de l'enfant, parce que euh, au départ, les enfants ne comprennent pas tellement pourquoi on leur donne des ordres, pourquoi on leur interdit des choses, et je dirais que l'une des premières euh, choses à faire en fait pour que l'enfant l'enfant ait plus envie d'obéir, c'est déjà de lui expliquer pourquoi est-ce qu'on lui demande de faire telle ou telle chose ou pourquoi est-ce qu'on lui interdit de faire telle ou telle chose. Il est très important d'être assez pédagogue dans la manière d'interdire. Et puis aussi, comme je le dis, l'ordre ne doit pas être aboyé sur l'enfant, il doit être donné de la manière la plus douce possible. Et très important, c'est les enfants fonctionnelle et qui n'a aucune information sur les raisons de cette dysfonctionnalité, si j'ose dire, eh bien l'enfant va être un enfant un petit peu plus rétif, un petit peu plus rebelle. Et ça, c'est il faut essayer de comprendre on ne peut pas laisser les enfants dans l'ignorance euh, des subtilités des situations dans lesquelles ils vivent. Par exemple, quand ils vivent avec un seul parent, qui on leur explique pourquoi. Quand ils vivent avec leurs grands-parents, qu'ils puissent comprendre pourquoi et qu'on leur euh, parle quand ils doivent déménager, pourquoi ils changent d'école et qu'en fait ils soient, euh, même s'ils ne sont pas consultés non plus pour savoir si on fait ou si on ne fait pas, mais qu'en tout cas ils soient au moins Alors, une dernière question, Mariem, qui est bien de notre temps. comment éloigner les enfants des écrans alors la question est tellement tellement vaste et c'est tellement difficile de la résumer, mais je vais quand même essayer. Euh, c'est-à-dire que les écrans, c'est une activité. Ce n'est pas forcément euh, mauvais d'ailleurs. En fait, comme toutes les choses, toutes les activités, dans l'excès, c'est mauvais. Euh, il faut doser tout simplement la présence des écrans dans la vie de l'enfant parce que ça fait partie de sa génération, activité parmi toutes les autres. Ce n'est pas la peine non plus de diaboliser les écrans. Il ne faut pas tomber dans des extrêmes de certaines familles euh, qui ont supprimé absolument tout écran de l'enfant, de la vie de l'enfant, parce que clairement des écrans, il les verra chez les copains, il les verra même à l'école parfois. Euh, il faut euh, essayer de doser la présence des écrans et proposer encore et encore beaucoup plus d'activités pour détourner l'attention de l'enfant Merci Mariam pour tous ces éclairages. Merci chers auditeurs. À très bientôt avec toujours autant de plaisir à une autre émission. Et toujours autant de passion. À très bientôt.